alors euh, pour euh, euh, CV yi nga xam ni ñoo ngi koy recevoir n'hésitez surtout pas bu ngeen amee xam-xam savoir-faire te amu leen liggéey ngeen yónnee nañu ko par mail bu fekkee jot nañu ko nag ñu jàllale ko gratuitement parce que loolu ci suñu partie téléservice la bokk te yéen la ñu ko jagleel yéen ñi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média alors CV bu njëkk bi CV wu Janor Marietou la. alors Janor Janor Marietou dernier diplôme 2010 2011 def na commerce international et marketing brevet de technicien à IPG institut privé de gestion séminaire de formation en télémarketing avec l'agence de communication et audiovisuel euh, haute définition expérience professionnelle stage en entreprise à Jetma Sénégal deux mois stage en entreprise à Cissère Euh, sénégalo-italienne de commerce d'équipement de représentation et de services def na itam euh, stage en entreprise Euh, ci société bu tudd net système informatique et télécommunication alors si euh, de euh, Dianor Marietou mën ngeen ko contacter par téléphone au 77 180 27 48 ou au 70 799 39 48 contactez cette personne aussi parce que xaw ma góor la wala jigéen Dianor Marietou ah. Marietou Marietou jigéen. si merci vraiment merci. ah yaa ñu laaj mais merci elle gmail com. Pape Cheikh le deuxième CV appartient à Fall Olimata Cissé son dernier diplôme euh, je pense qu'elle nous parle de ses études parce qu'elle a mis à 2004 maîtrise en marketing et commerce commerce à l'école supérieure de commerce de Dakar concernant ses expériences professionnelles. Elle nous dit Je suis responsable commercial à Abi un nouveau produit de transfert d'argent, prospection de clients partenaires sur le terrain comme les multiservices et points transfert coaching d'une équipe commerciale de septembre 2009 à août 2011, contrat à la Sonatel Multimédia en charge de la fiabilisation du fichier des clients sur les deux bases Gaïa et SICO. du support Internet pour le réseau commercial, assistance des commerciaux pour tous les problèmes concernant l'Internet, du recouvrement et de la facturation, la mise à jour de la base push SMS VOD. Donc pour la contacter, vous pouvez le faire par téléphone au 77 536 95 54 ou au 33 854 43 49 ou par mail à olifal.com s2m arobase orange point sn jeex pourtant amoon nañu offre d'emploi mais peut-être euh, demain ñu euh, jox leen ko comme ça ngeen mën cee bàyyi xel parce que bëgg nañu itam euh, ñi nga xamee ne ñooy joxe liggéey ñu contacter équipe bu jóg job soxla bu teew ay nelaw faju ko bàyyi leen ci xel ku ci amul liggéey sax na nga jóg góorgóorlu parce que nag yàlla yàlla bay sa tool la ñu wax ah amul toog rek naan dëkk bi amul liggéey wala dem naa gisuma xaddi baaxul ah tubaab sax wax na ko il n'y a pas de c'est ça donc ñu ngi leen di souhaiter encore une très bonne journée il n'est que 7h38 fajar dong la ñu toll xam naa ni euh, ñenn ñi génn nañu seen i kër ñenn ñaa ngi yeewu àndandoo ak ñun mën ngeen a wootee ku njëkk a dugg léegi euh, dañu lay may 50